laa dugg. waaw sant rek. boo ma alayhi salaatu wa salaam. Euh, mais Pape euh, yaa ngi seeti sa waa ji rasulullah. man la ngay. waaw ah, waaw maa maa ngi dem ziar yonent bi. di umra ñëwaat. maa ngi nuyu gars yëpp لولاه أدامت الجنة عن سألكم أحلى صياما أقياما D'accord. waaw sant rek. moom alayhi salaatu wa salaam. <laughs> Euh, mais Papa Tall euh, Papa Tall Lo yaa ngi seet sa waa ji rasulullah. <laughs> man lay. waaw ah, waaw maa maa ngi dem ziar yoon bi. di ubbi ñëwaat. maa ngi nuyu gars yëpp nag Sénégalais ah. avec président. نشكر على حبك وخيرك وسلامك نحلى صيامك نحلى قيامك المولى يعطر أنسامك يا رمضان محلى أيامك بارك هالمولى وأدامك بالجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك اغمرنا يا شهر التوبة من فضلك إيمان ومحبة يا رمضان يا رمضان اغمرنا يا شهر التوبة من فضلك إيمان ومحبة يا رمضان يا رمضان امنحنا من حلوى الروح داوينا من أي جروح محلى صيامك محلى قيامك الجنة عظيمة Compromising on the mind and attention, attention, attention, attention, attention, lépp gannaaw yàlla ak yonent bi ak moom sant naa ko gërëm naa ko yàlla na si saytaane yàlla bu la benn noonu rey ci barke sëñ Babacar su ma siyaaree yonent bi yaa ñun day vraiment kontaan nañ di liggéey ak nit fu mu jëm la kañ def ba yóbbu la ci yonent bi fa la confiance mën a yem yàlla na yàlla defal jàmm defal la sutura defal la sew ñu di régler ay affaire rendez-vous d'affaire lañ ah. affaire bi Kaaba Kaaba Kaaba Kaabatullaahi lañ koy Kaaba Kaaba. waaw sant rek. waaw ma alayhi salaatu wa euh, mais Pape Matar. Euh, yaa ngi seeti sa waa lépp gannaaw yàlla ak ñoom moom sant naa ko yàlla na yàlla lafal cat. mosal su ma siyaaree yonent bi yaa tax. waaw ñun day vraiment kontaan liggéey nit fu mu jëm ne la kañ ci yonent bi fa la confiance mën yem yàlla yàlla defal jàmm defal la sutura. defal la séeréer ñu ngi waxtaan di régler ay affaires rendez-vous bi Kaaba Kaaba Kaaba Kaabatullaahi lañ koy régler. providing a waaw sant rek. moom alayhi salaatu wa salaam. mais Pape Matar. Pape Matar Lo. yaa ngi seeti sa waa ji Rasulullah. ñu ngi waxtaan di rek laay rendez-vous d'affaires lañ jëm Makka affaire bi Kaaba Kaaba Kaaba Kaabatullaahi lañ koy réglé. ma rek bu moom la yóbbuwaat mooy sama ñaareel bi yoon lépp gannaaw yàlla ak yonent bi moom sant naa ko gërëm si saytaane yàlla bu benn noonu rey. ci barke sëñ su ma siyaaree yonent bi yaa ah waaw ñun day vraiment kontaan nañ liggéey ak nit fu mu jëm ne la kañ dem ba yóbbu la ci yonent bi fa la confiance mën a yem yàlla na yàlla defal jàmm defal la sutura. Pape Makhtar Lo waaw sant rek. waaw maaleykum salaatu wa salaam. mais Pape Makhtar. Pape Makhtar Lo. yaa ngi seeti sa waa ji Rasulullah. waaw kenn du moom. ma rek bu baax ji moom la yóbbuwaat mooy sama ñaareel bi yoon lépp gannaaw yàlla ak ñoom moom sant naa ko gërëm naa ko yàlla na yàlla lafal cat. mosal la si saytaane yàlla bu la benn noonu rey. ci barke Sëñ Bamba su ma siyaaree yonent bi waaw waaw ñun day vraiment kontaan nañ liggéey nit fu mu jëm ne la ba yóbbu la ci yonent bi fa la confiance mën yam yem yàlla na yàlla jàmm defal la sutura. defal la xew ñu ngi waxtaan di régler rendez-vous d'affaire lañ jëm Makka affaire bi. Kaaba Kaaba Kaaba Kaabatullaahi